preuve kàngam ba Matar sekk ba mbooro nee na alal bu gaawee juddu ba lewul firnde laa ngi ci yéen kaay yu bari ñu xëyandool ñu bari ci ñoom xëy ak ñun ci jàngat bu magistrat bi di Alioune Ndiaye sentif def daaw jëme ci xaalis bu bari bi ñuy raxas ci réew mi di ko ci dugal ak lan la mën a jur lu bari ci blanchiment d'argent yooyee observateur nañu ci wàllu taax yi di bâtiment ci la ñu ko ca dugal yéenekaay bi nañu la ñu jàppagum toll na ci ñetti téeméeri milliards ak fanweer yoo xam ne xaalis la bu ñu raxas mu di blanchiment d'argent ñu dugal ko ci wàllum bâtiment Sud Quotidien nañu ñetti téeméeri milliards ak fanweer yoo xam ne loolee dafa rëcc banque yi ndax jaarul ci ñoom gars yi dañu koy raxas jëfandikoo ko lépp nag lu ca bari ci wàllu taax tey la ñu ko dugal le quotidien nañu fa yëf ya gën a wullee ñaay moo di ca diwaanu Mbour ne foofee li ñu naan blanchiment d'argent tubaab ya ko fay def di doomi France yi dañu cee dem ba jeex ñoo nga cey def lu dara jarul populaire nañu enquête bi santif def jëm ci blanchiment d'argent la mu feeñal moo di ci ñaari téeméer ak ñeent fukki milliards yi ñu blanchir dugal ko ci wàllu bâtiment fukki ya dong la xam fu mu jaar ca diwaanu Mbour ak ca Saly a kër ja yéen kaay bi dañu ab diplomate la nguurug Sénégal joxar bi nañu ko ci baaram tuuma yi tëj ci seen i gët direction générale impôt ak domaine waa cadastre ak waa urbanisme mel na ñu fàttee contrôlé la si xëy ak ñun ci ñuy blanchir ak nañu koy doxalee dugg ya génn yi fa ñu koy jaaraleek nañuy def ba mu yokk ak nañuy def ba kenn du ci teg bët loolee lépp yéen bi xëy ci dellusi ak ñun ma dem ci la soleil mi xëy dellusi moom ak ñun ci tëj l'école yi ministère éducation ne ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru sàttumbar la ñuy ubbi l'école jàngalekat yi ñoom du dem école te benn fanweeri octobre jotul njiit réew mi Macky Sall la ca santaane moo di calendrier scolaire beek li mu wax nañu ko respecté boole ceekit lu ñuy mën di def nañu ci ànd akuk dal jiital waxtaan def kéemtalaay kàttan ba lépp loo xam ne jëloon nañ ko ne engagement ñu respecté ko ca conseil des ministres baak Macky Sall dal ci wàllu njàngame observateur nañu ñeneen ñu ca woote leneen moo di waa COSYDEP bil journal bi démb ab jano la ñu amal ak taskatu xabaar yi génne li ñu naan ubbi tey jàng tey ñu bëgg ñoom waa moo di juróom-ñetti fan ci weeru octobre gi nga xam ne ci la l'école di tijji bañ a am ñu jàngi tey ñi na ñëpp jàngendoo benn jafe-jafe cee am le nañu jafe ñàkk déggoo gi am xaat ci ubbi teg l'école gi la waa COSYDEP bëgg mu dakk ba tax na Cheikh Mbow ak i gaayam amal démb ab jano taskatu xabaar yi dellusiwaat ci loolee taxawal li ñu naan ubbi tey jàng tey tey wal fajri ci Mohamed Boun Abdallah Dionne la xëy mu di premier ministre bu Sénégal yéen a kaay bi xëyëb taxaw seetlu ci nekkinam ak doxalinam moom premier ministre li mu gis moo di lu bari ci pouvoiram moom Mohamed Dionne ma nga koy ñàkk ne dossier yi gën a mag kenn du ko ca dégg boole cekkit lu bari lu mu waroon a def ay ministre am ñoo koy def ci gàttal daal Mohamed Dionne xottu kese la yor Sud Quotidien moom gisewul noonu ne la mu gis moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne aw doxalinam lépp da koo teg ci dal dara feeñu ca maanaam discrétion mooy ngànnaayam direct ñoon ci waa APR moo leen di dal ne parti baak ñi nga xam ne dañoo demoon ba gis seen bopp di ay frustré taxoon ñu gedd bàyyi ñooñee ñi ngi leen di woowaat benn benn di wut fu ñu leen dugal ma dugg ci la seen kay fekki fa kàddu yu Garga Mbossé nee Ama Baldé da koo ragal maa nga ca lamb ja sunu lamb moom xëy ci Modou Lo xarañ loo gonek parcelle gi gonek Rock Énergie gi yéene kaay bi li koy xaar ne défi moo di ñi nga xam ne mas nañoo daan Triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 moom Modou mu daan leen ca ñooñee Issa Pouye la Eumeu Sène ak Bombardier yéene kaay bi nañu Issa Pouye ak Eumeu Sène jot na leen a daan mu des léegi nag bombardier ma dem léegi nag ci stade yéenekaay mi xëy ak ñun ci Boukari Dramé football katu Sénégal la ba ñu ko laaje lu tax Alain Sires woowu la ngir ngay football mag si Sénégal yi la mu tontu gars moo di loolee dem leen laaju ko Alain Sires li ma xam ba xam ko daal moo di li ma war ngir ñu wooma maa nga ca observateur mi ngi ci mbiri xale bu jigéen ba ñu faatoon ci HLM Angle Mons ubbil yéenekaay bi moo di mbindaan ma journal bi nañu Binta Clarisse Mané la tudd mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett te it ci xibaar yu ñu jot sa ci lu yàggatul woon dara waroon naa sëy najaay ji di du jaar te ñu ci yéenekaay bi ab jarbaatam Binta Clarisse Mané ci xol bi la ñu ko jam ki ko jam ba faat ko waa police miy def enquête bi ne ñu ñoo ngi ci tànkam seeni gët ci populaire ñu xooli fa la xew ca Cheikh Iba yéenekaay bi nañu bëccëgu ndara kàmm la fa benn police dugg bëggoon a benn xale bu jigéen bu bokk ci xale yu jigéen yiy jaay seen bopp xale bu jigéen ba nekk fa di jàppanteeg policier ba ba far xotti tëni ba